tey agsi ci xabaar yi ci wolof ci gàttal euh, asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam Babacar maa ngi lay ziar di ziar ñëpp ñu ànd RFM di leen ñaanal jàmm saaku sàkku ñaan ci ñëpp. examen vingt 2022 candidat yi Sénégal jublu ci jamono yi ci examen yi lu toll ci téeméer ak juróom fukki junni candidat lañu ci mbooloom gox yi Sénégal euh, tey ci suba ñuy tàmbalee épreuve bi di euh, philosophie euh, yaa di instructeur académique bu Fatick moom di fàttali rek candidat yi rawatina yu goxam ñu daal di wàccoog bépp tere bokk na ca yorinu téléphone portable ci biir centre examen yi ndar di dalloo tey aéroport international am alxamis tey ji ci teewaay ak njiital président Sall lay doon jumtukaay bu am solo boobee. boole ñaar fukk ak ñeent ci milliards dem ca dina gën suqali koom ak diwaan nga waaye rawat na wàllu tourisme wàllu xibaar bokk na ci it rëcc gi ñu ne Papa Mamadou Seck daf ko rëccee kaso moom mi nu toppee bokk ci kuréel gu ñu duppee force spéciale ci wàllu woowu kilifteefal kaso du Sénégal di administration pénitentiaire daan ci indi leeral ci kanam tuuti ci conférence de presse lay doon politique geeg campagne bi ngir wootey député ñanga ca ci wàllu loole ne ay euh, campagne waaye la ca ñuul rek mooy carte yi yu ca bare nga ci ñaari junniy carte yu foto tumranke euh, président commission ba ne bu sañoon ay ji politique yi ñaax ci seeni ñoñ ñu dem jëli seen carte yooyee ci technique bi Lamine Sow. Assane examen baccalauréat euh, bu euh, Sénégal atum 2022 euh, tey jii lay tàmbali jamono yi ñuy wax ak yéen ci mboolem centre examen yu Sénégal téeméer ak juróom fukki junni candidat yu tegal juróom ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci la ñu toll macha allah gune yi ngir kon jublu ci épreuve bac boobe jàppale ni nag matière ba ñuy tàmbalee philosophie la tey ci suba wàññite nag ci mbooleem candidat yi gis nan ko ci bu nu ko méngalee ak daaw daal dina néew lu toll ci juróom mbenn di ak ñeenti téeméer ak benn ci wàllu wàññite ñeel limub ren bi nag Thiès a ci le ci ay candidats Thiès am nañ fa ñaar fukk ak juróom-benn junni yu tegal téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci diwaanu Fatick euh, kilifa gi ci wàllu njàng mi di instructeur d'académie diwaan ga la mu bëgg ci candidat yi ngir examen bi mooy ñu daal di wàccoo ak lépp loo xamante ni ak tere la jëm ci wàllu examen bi ci centre ba rawatina yorinu euh, téléphone portable yi ñu teewlu ko moom Cheikh Yaba Diop ak soxna Aminata Goudiaye bi. li mu candidat yi war a jogante si baccalauréat 2022 si académie Fatick nii la tëddee juróom-ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom la toll jigéen ñi seen lim toll na si juróomi junni ak euh, ñeenti téeméer ak fanweer góor ñi seen lim toll na si ñeenti junni ak téeméer ak juróom fanweer ak juróom-ñett euh, candidat yooyu dinañ leen tas si ñaar fukk ak juróom-ñeent centres principaux ak euh, fukk centres secondaires ak fanweer ak ñeent jury di fàttali candidat yi que ni portable ak lépp lu xeetoo portable dañ ko aaye si centre bi aaye ko si salle d'examen di leen ñaax ñu wàccoog tegtal yooyu parce que lépp luñ ci def lu safaan moom rek ay daan mu ne fekk euh, di fàttali délégation bu am solo gouverneur dina ko jiite pour ñu dem nemmeeku centre d'examen yi xool jongante yi nan la fa tëddee mu ngoog inspecteur d'académie bu diwaanu Fatick Cheikh Yaba Diop ci examen tey yeeg gune yi ak euh, la mu leen di xelal néew doxalin ak toogin ci biir centre examen yi bu weesoo Fatick mboolem gox yi Sénégal gone yi tey la ñuy sóobu ci boobu examen baccalauréat ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp ndam ci boobu examen leneen ci xibaar ak RFM mooy diwaanu Ndar gi dalloo tey jumtukaay bu am solo aéroport international ñaar fukk ak ñeent ci milliards ci dem dina suqali bu baax gi waaye rawatina wàllu tourisme ngir diwaan ga euh, ci fànn woowee lu jëm ci wàllu ko yombal euh, dem ak dikk ci diwaan yit naka noonu ci gis-gisab ministre bi ñu dénk wàllu transport ay tourisme euh, Aliou Sarr euh, président Sall kon dina fa teew tey jii mooy jiite xew wi alxamis tey jii ci diwaanu Ndar démb ci conseil des ministres sax moom jiitu réew mi mu ngi doon dikkaat ci li nga xamante ni mooy yokkute gi ak yitte gi ko ndar yitteel bokk na ca lu jëm ci wàllu lancement euh, liggéeyu hôpital boo xamante ni dina fa jiite tegab doj bu njëkk bi hôpital ab ñeenti téeméeri lal foofu ci diwaanu ndar ba tey ak it lu jëm ci juróomi téeméeri dëkkuwaay dëkkuwaay ngir ñi nga xamante ni ñoom ñoo loru woon euh, ci euh, Guet Ndar ci Kër Massar moom it askan wi daal di féex lool sant bu baax ci wàllu dem ak dikk bi ndax xataayub dugg baak génn ba foon échangeur di kon autopont bu ñu leen fa defal dina yombal mbir yi ubbi nañ ko démb sax ci ngoon ci teewaayu préfet askan wa ñu fàttali ni boobee jumtukaay fukki milliards euh, moo cay dem euh, ci it sàkku nañ ci ñi nga xamante ni ñoo doon lal ci wet gaa yeneen it ñu daal di taxawee neneen jëlee nañ fi ay njaboot lu toll ci ñaar fukk ak juróom-benn ci liggéey bi waaye saa su ne nañ koy defee rek ci wàllu kon ak yëkkateeg la mu àndal ndey ndàmpaay reportage ci Kër Massar ak Ndongo Ka ay tàccu ak i oto yuy korne ngir fësal mbégte ci li nu ubbi na ko pom bu bees bu Kër Massar. Serigne Mbacke Sylla bokk ci borom oto yi nga xamante ni ñoo njëkk a daw nag ci bile pom mu ne fi mu toll nii nag am na coono goo xamante ni daal dina leen teggeeku. am nañ mbégte ak kontaan ñi dëkkee ci Kër Massar ni fi mu toll nii nag daal dina nuy béeg Alioune jaas yi di kenn si ñoom. pont bi dafa ñëw soulager population Kër Massar. ñëw Kër Massar waratul am benn difficulté Kër Massar mun na jooy leneen lu lul embouteillage. bile pom ñu tabax war a yombal dem gi ak dikk bi ci Kër Massar rawatina mu doon département boo xamante ni ñi fi dëkkee nag dañuy gën di yokku Fall mooy préfet bu Kër Massar. pont bu toll nii nga xam ne nii li mu jar ci xaalis daanaka ëpp na fukki milliards. lu aju nag ci saytu ak toppatoo bi le pom préfet bu Kër masaar ni nekkul nag lu nuy caaxaanee. pont bi taaru na macha allah jël naa déjà arrêté boo xam ne dafay tere képp ku taxaw ci emprise u autopont bi ànd ci nag ak ñëpp ñuy woo marchand ambulant yi woo commerçant yi woo ku nekk dugal ci loxo. ngir taxawal bi tabax mu am ay gàllankoor yu mu àndal ndax lu yemook ñaar fukk ci ay njaboot daal fukki famille ak juróom-benn yoo xam ne ni seen xaalis jox nañu leen ko gannaaw bu ñu ko xayma am na ci nag ñoo xam ne ni wax dëgg yàlla fi ñu wax ak yéen ni jubóoguñu ci kàddu ba tax na juge bi nga xam moo yore wàllu expropriation daf ñoo autorisé ni nañ continuer parce que intérêt général moo jiitu intérêt yëpp nag ñoom ñu continuer waxtaan ak famille yooyu ba keroog ñuy juboo ci kàddu sas nag waa Ageroute ne nañ jël xaalis dénk ko fële ca caisse de bu keroog bu ñu juboo ñu jël xaalis boobu dàmpe leen ubbi teg pom bu yees bu Kër Massar ñu gu takku daal dee jël yëf yi def ko ak feet Ndongo Ka Kër Massar rajo Futur Media. jërëjëf euh, Ndongo Ka leeral bu am solo di njaboot yi nu dàmp am na ca ñu ca jotagul ci seen i ndàmpaay balaa kon feet gi ak mbumbaay gi tax ñu fàtte leen ndax yëkkati nekk njaboot moom euh, baax na ci ñu sancal leen feneen kon ci wàllu ndàmpaay ñu ngay xaar waxtaan yooyu ñuy ñaan gindi ko am ci euh, ngir ñu mën a ñoom it dem suturlu feneen ak seen i njaboot ñu des ak askanu Sénégal bi yoon ak wàllu wér gu yaram. coronavirus gi mu ngi fi ba tey démb sax euh, lim bi daa yokk Sénégal juróom fukk ak ñett ñu ko amee ci jamono yoo xamante ni wàccoon ba daanaka ay benn ki ñaar kon ngeen gis ne yëf yi ndekee mu ngi làqoog ñun ba tey ci tey la fagaru gi gën a war noonee la jëwriñ ji ñu dénk sax wàllum pagaru euh, di euh, directeur du Ndiaye waxee moom mu ngi ca ministère de la santé bu sañoon daal askan wi wàccoo ak digle yi rawatina colom masque bi docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention ñu teewlu ko Serigne Saliou Seck. li ko waral mooy que feebar bi commencé nañ di ci am njàngat yu bëri. dañoo seetlu ne que feebar bi ni muy doxee que day yëg ak di wàcce aussi loolu ci ñetti at yi nga xam ne wala ñaari at yu teg yi nga xam ne feebar baa ngi fii seetlu nañ ne que weer wi juin juillet ba août pratiquement feebar bi day yéeg mooy li ñu wooyee vague ay vague mun nañu wax ne que actuellement sax mun nañu wax ne que lii bu dàqul ci vague lañ jëm wala cinquième vague mun nañ ko wax sax mun nañ wax nekk que commencé na tàmbali kon nag nit ñi nañu gën a góorgóorlu xam ne que feebar baa ngi fi mosu fi jógee mu ngi fii donc nit ñi bàyyi ci xel di tu lépp li nga xam ne dañ ko doon tere aussi di topp digle yi nga xam ne ñu ngi ko doon joxe pour feebar bi bañ leen a sonal comme surtout sol masque masque yi mosuñu ko bàyyi mesure bi amoon na jëloon nañ ko état bi jëloon nañ ko nguur gi jëloon na ko mais mosu koo bàyyi kon dañ ko dañoo war a wéy di tàkk suñu masque surtout suñu nekkee ci ay ndaje wala ngay dugg ci transport wala ngay def yenn yi di raxas suñu loxo wala di sarewantoo li nga xam ne aussi war na mun a war nañu mun a dimbale pour que ñu éviter euh, feebar bi nañu xam ne aussi mu ñu bañ a fàtte aussi ko ñàkk yaa ngi fii ñàkk yooyu aussi am na njëriñ parce que day tax ba nit ki xëy na du am forme mooy maanaam du du la indil loraange bu bëri kon nag nit ñi nañu gën a parlu ci lépp li nga xam ne ñu ngi doon digle bërki démb ak démb loolu la ñuy digle toujours ci feebar bi mbas maa ngi fii demul fenn. ñu des ak askan wi nekk nekkinam wàllug euh, ñàkkam courant naka noon it am ndox. ak it euh, ñu dëral leen yoon wi nga xamante ne moo dox diggante Fergie ak Kayemor loolu bokk na ci li euh, askanu département Nioro euh, di jàmbat boobaak léegi seen maire bu bees bi nga xamante ne nag bu yàggul la fekki président Macky Sall moom joxe na ca ay ay digle daal dig leen daal wute saafara ci leeral Pam Mbaye Diaw ki nga xamante ni dañ koo tabban maire ci coalition gox yu bees te moom mu mujjën dem ci coalition Benno Bokk Yaakaar di xamle ne moom njàqare la am ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la askan wi nekk ci commune bu Kaymoor nekk ci département bu Nioro di dundee Saliou Cissé di sàkku jafe-jafe yooyu ñu daal di ci indi ay saafara. te dara intéressé wu leen lu dul défendre intérêt commune Kaymoor te intérêt commune Kaymoor yaakaar naa ne ki ñu jiital ci boppam bi. porté ko au sommet maanaam jàppale commune ba commune bi yegg président nga xamante ne bu Nioro di dalal xelu askan wi alimaane di xamle ne lépp lu fiy jafe-jafe rek gouvernement bi dina ci jokk te yoon wi nga xamante ni moo jóge Firgi jaar kay moor nga xamante ni askan wi dafa yàgg sàkku ngir ñu defaral leen ko liggéey bi léegi rek mu daal di door yéen mu am ci Kaymoor yéen yu am ci département incha allah problème mu école problème mu électricité problème mu baykat yi problème mu mu ndaw yi ci taxaw mu ngi ci plan wu désenclavement moom xam na ci dara moog le maire Samba Sall ñu ngi ciy liggéey am solo donc loolu moom lu ñu lu ñuy fàttali lu ñuy fàttali ci fan yu néew ñu ngi ci ak yeneen yoon sax ci biir commune responsable yi nga xamante ni ñoo nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar nekk ci commune bu Kaymoor ci département bu Nioro di sàkku ci président Macky Sall mu gën leen na dooleel ak ay postes de responsabilité yi RFM Kaolack Pape Mbaye Diaw. jërëjëf Pape Mbaye ñu waxtaanee euh, tabaski geek euh, njaayum xar meeg ñi nga xamante ni yenn ci xar dafa des ci seeni i yoxo ba tey ñoom tefanke yi euh, la fi des ne xëy na du ñàkk yaakaar mooy xaar tam xarit gi ñu ne ak it ujaaj euh, yi dellu si euh, jóge ca bërëb bu tedd bi màkkatal mu karama ñu ngi sàkku ci askan ci kilifa yi di autorités yi ñu daal di leen di may ñu yokk délai yi jëm ci wàllu wéy di sañce ci daral yanu ne reportage Mamadou Ly mu toll si fanweeri junni xar gisuñu ab jëndkat suñu sukkandiku ci ministre de l' élevage Aly Saleh Diop ñu nemmeeku lu ñu mel ci deux voies liberté 6 yi ak ci rond point liberté 5 Samba Ousmane Diakhaté doon ab jaaykat. saaku ngooñ doon jar huit mille dem léegi ay treize mille saa kooraay Mali bi doon jar dem dix mille seize mille cinq cent xam nga loolu yëpp da jugé ndox mi da nga koy jënd xar sax boo ko sangaloo xar bu mag da ngay fay mille francs bu ndaw téeméer xam nga lool yëpp bëgg a répété wu maanaam ci liggéey liggéey am na noo xam ne bu ko liggéey bi doxeewul rek il faut mu métti Cheikh Oumar dëggal li ni mel nen secteur yi nga xamante ne dañuy jaay xar ñu indi euh, gis naa sax ñu jógee ba États-Unis ñu fi ñëwoon vacances euh, dem jël seen alal dem dugal ci xar euh, pour jaay gan gan gën a yokk affaire yi mu des mu des parce que koy xamante ne musul def xar musul def opération xar mu dégg xar rek waaw dina manqué dina manqué nga jël say million dem ci àll bi jëndee xar nga naan da ngay jaay loolu moo gën a yokk affaire yi mu mu des tabaski weesu na ñuy xaar tam xarit ak ujaaj yi ngir jaay lu leen dese ci xar ñuy jógee lu màgg bu ñu ñëwee amaana ba magal Touba sax bu ñu mun a dañuy ñaan rek fii ba magal Touba xaay bu ñu mënee may fi ñu terminer a bëri ko jaay ci benn weer mënoo ko jaay ci weer ak genn wàll ñun dañuy ñaan état bi fii ak deux mois ci màggal Tuuba bi. ñetti fan ginnaaw tabaski jaaykat yi di sàkku ci autorité yi ñu yokkal leen délai bi ñu leen jox ci bërëb yu ñu nekk ngir mën a jeexal lu leen dese si ab xar. jërëjëf Mamadou RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak ñaar. ak RFM kumpa jeex na. politique ak waajulu élection palak député Sénégal ak lu jëm ci wàllu carte yi nuy war a wote bu bis baa ñaari junni ci yooyu carte ña nga ca préfecture bu diwaanu luga seeni borom kenn gisu leen moo waral commission bi sàkku ci aji politique yi ñu ñaax seeni militant ak électeur ngir ñu dem jëli seen carte yooyee président commission séddaleem carte ak Louga gi lañu ci àndal Pathé Dabo ak Ibrahima ak Abraham Polpuy xam nga ñun démarré nañ depuis le 15 juin mooy date officielle bi donc euh, bi ñu waree commencé également am na 1518 cartes yu bees yi ñu envoyé yi fi xawoon a yàgg moom toll na ci 1281 boo xoolee tey li ñu distribué lépp lépp lépp donc ci cartes yu bees yi am na juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar carte yu yàgg yi rek moom daanaka euh, fukk ak juróom-ñaar rek lañ ci joxeegu foofu daal la ñu toll. ñoo ngi fi ñun ba 30 juillet incha allah donc la veille des élections appel bi nag moom ñi nga xam ne ni ñooy autorité administrative yi ñoom def nañ ko bu yàgg ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu fi teg nañ ko bu yàgg à travers rajo yi. mais jël nañ également crieur public yi wër ci mbedd yi yéegal jëgale ko bon mais ma yaakaar ni tey fi ñu toll nii acteur politique nag ñoom ñoo war a jël seen rôle comme ñu ngi ci campagne di. regrouper la grande masse mais bu leen gisee wax seen militants yooyu ni leen dem leen jëli seen carte yi ñu ngi ci ñu ngi ci préfecture yi je crois daal foofu daal lañ war a lañ war a fëgg waaye eh, bu ko defee xëy na rythme bi gën a gën a gën gaaw président commission bi ñu denk séddaleem carte élection yi ca diwaanu Louga Pathé booy bi doon ñaax kon ñii di aji politique yi ngir seen i militant mën a jëli carte yooyu ne ci seen yoxo ba tey gisuñu seen i borom ñu fàttali nii mu ngi toll ci ñaari junniy carte foofu ca diwaanu Njàmbur kilifteefal kaso bi Sénégal di amal janook taskatu xibaar yi tey jii ci suba bu 11h euh, ci mbiram euh, Papa modu Seck euh, mi nu toppee ak bokk ci mbootaay gu ñu duppee brigade spéciale te it mu rëccee ci kaso bi la ñuy indi ay leeral seen digg ak taskatu xibaar yi ñoom administration pénitentiaire bu Sénégal. ca Thiès ca gox bi di Daaru Salaam soxna suñ fa teg loxo ndax jur sànni jur faat leeral li Cheikh Anta Diop. Fatou Niass lay wuyoo juddu ci atam 1992 dëkk ci quartier bi ñuy wax Daaru Salaam nekk ci Thiès moom de dañu ko jàpp. ci ne dafa faat ab liiram mu amoon ci àllarba bi ñu génn ci une ci naaj wu tàng wi la ñu oo waa premier arrondissement xamal leen ne dañoo gis ab xale bu ñu lëmas ci ab mbuus sànni ko ci bâtiment bu àggul policiers yi demee ci bërëb bi ñu fekk nag xale bi ñu def ko ci sachet bu bleu fekk na nag ñàkk na bakkanam ba noppi sapeur pompier nag ñëw jël ko yóbbu ko ci morgue hôpital Amadou Sakhir jigéen bu Thiès médecin légiste bi nag bi ñu xoolee gis ne liir bi dañu ko xoj ba mu faatu faatu ñas bi mu jàkkaarloo l'enquêteur yi nekk ci police premier arrondissement bu cees ci njiitalu commissaire Thioub ci la bëreel na ne moom moo xoj doomam ba mu faatu li ko waral moom mooy ki ko ëmbal coroy xaritam bu jigéen la woon nee na gàcce googee mënu koo xool ba tax mu faat xale bi ñu ngi ko téye jamono yi ci garde à ci police premier arrondissement bu cees ngir ñu gën a xóotal enquête bi feek altine daañu ko yóbbu mu jàkkaarloog procureur bu moytuwul dinañ ko yóbbu ci kaso bu cees liñ koy toppee nag moom mooy faat doomam mu di ab liir RFM Thiès Cheikh Anta Diop. tàggat yaram tey ñu ci ànd ak am Amadou Sabax Ba. jërë ngeen jëf bismillah ci xibaaru tàggat yaram yi ñu doore ko kaan féminin bi ñu amalee fële ca Maroc ñi nga xam ne ne ñooy gaynde jigéen ñi mujjee nañoo toog waa Zambie ñoo leen dóor ci tiro bi ba ndax ca match ba ku nekk dafa dugal sa morom benn bit ñoom joueurs yu Mame Moussa Cissé du ñu mujjee dem ca la nga xam ne ne mooy coupe du monde bi ñu teewlu suñu ndaw la ñu yebal fële ca Casablanca Youssouf Bodiang ay supporters yu Sénégal yu jaajëfal gaynde yi ci seen taxawaay seen diggante ak Zambie donte sax dañoo ñàkk di match bu Sénégal dominé ci première période bi te dugalul waaye bi ñu ñëwaatee soixantième minute coup franc daal di am Mbayang Sow jël ko dóor ko ak pied gauche mu daal di tabbi ci bopp Ngendane Ndiaye mu mbëkk ko mu dugg waaye gaynde yi ci ginnaaw sa jotuñoo géré bu baax fukki minutes yi ci topp moo tax it ci 70e minute ñu daal di encaissé coup franc la Zambie am joueuse bi daal di dóor directement ci gardien bi di technique seen bal bi rëccu ko mu am benn joueuse bu Zambie bu mbëkk bal bi mu dugg ñu daal di égaliser ginnaaw prolongation yi ñaari équipe yi def 1-1 ñu dem kon tiro but Korka moo njëkk a raté côté Sénégal ci ginnaaw sa Tening Sène daal di jàpp benn tir bu Zambie ñaari équipe yi daal di tolloo waaye bi Awa Jaxate jëlee bal bi dafa raté penaltiyam kon gardien Zambie moo amoon bal de match bi waaye bi mu jàkkaarloo Tening Sène mu daan ko daal di may Zambie demi-finale am bu njëkk kon ginnaaw Jeux olympiques 2020 ñoom Zambie dinañ jongante coupe du monde 2023 di guléet waaye jeexagul pour équipe bu Sénégal da gaynde yi dinañ amalaat match de classement dimanche match boobu nag suñ ko gañee mën nañ bokk ci barage yi seen diggante ak beneen équipe bu nekk ci beneen continent loolu doon beneen occasion ci Sénégal ngir mu mën a qualifier ci coupe du monde bi Youssouf Bodian Stade Mohamed V bu Casablanca RFM jërëjëf Youssouf Bodian ci barrage yooyu nga wax ki nga xam ne ne mooy entraîneur bi di Mame Moussa Cissé nee na ba tey xelam ma nga ca maanaam daal xàddiwu ci ñu teewlu ay kàddoom. match bii ñu def tey naa ngi jàpp si quatre match yi ñu football si Coupe d'Afrique bi match bii moom moo si ëpp niveau ci wàllu engagement ci wàllu projet de jeu gis nañu tey beneen xar kanamu Sénégal et lii lu am solo la pour équipe bii nga xam ni mi ngi nii ñu koy ñu koy togg parce que ay xale si donc bu équipe bu jeune tey ñu dellu soit ci ni def nañu lu gën la nga xam ni defoon nañ ko 2012 et tey ji loolu il faut que ñu jàpp ko seet lan nañ si teg c' est vrai que demi finale yi mais coupe du monde bi rëtëguñu ndax match de barrage yi am na te d'ici dimanche incha allah dinañ remobiliser troupe yi pour ñu mën a def match boobu nga xam ni dinañu permettre ñu mun ko gagner mun a projeté wu si euh, éliminatoire coupe du monde yi. justement su ñu waxee seen jaar-jaar wax ko euh, c'est la coupe d' Afrique des premières def ngeen ay jaloore yu bëri lan ci ensemble euh, musuñu woon dugal bii nañ fexe dugal bii coupe d'Afrique bu njëkk ba musuñu woon gagné match nañ fexe nañu coupe d'Afrique bu njëkk ba musuñu génn euh, dem quart de finale def nañ ko ci coupe d'Afrique bi loolu muy am taxawaay bu am solo ñu bëri xalaatuñu woon ni équipe Sénégal bi mun mun na am lii mais jàpp tey ak réaction yi nga xam ne gis nañ ko dëkk ba ak tey public bi ni ñu ñëwee tey ñu gis ni nit ñaa ngi commencé gëm équipe bi loolu lu am solo la collectif sama sport sama avenir la ñu bëgg nag mooy ñu tegal leen euh, gazon synthétique Tiwaawoon waaye tamit ñu defaraat infrastructure boobu ba mu mucc ayib ndaw yooyu di yëngu ci wàllum tàggat yaram la ñu bëggaat bokk na ca subvention yi nga xam ne dañ koo jagleel club yu nekk ci département bu Tiwaawoon te laaj woowee ñu koy laaj ñi nga xam ne ne ñoo yor mairie bi jamono ji ñu teewlu ci Jeylaani Ñang di secretaire général bu collectif bi. ñu commencé ko nag ci gazon bi nga xamante si ni maire sortant bi indi na ko fi te depuis boobu ba léegi maire actuel bi muy Diop Sy waxu ci dara lu leer ñun nag ñu temps ñu ni ñu defaral nu bi. parce que équipe bi nga xam ne si nii mooy équipe faaru dëkk bi bu gën di football yi yow da ngay sax rus boo ànd ak équipe bi parce que dan naan Tiwaawan lañ jógee xamuñu gazon te loolu dafa ñaaw ci deru Tiwaawan ñun lu ñuy xeex te premier pas bi mooy gazon bi mooy ñu defaral ñu ko defaral ñu stade bi bu baax a baax grille de protection yi porte yi ñu am li nga xam ne si nii mooy stade bi nga xam ne si nii dina répondre au moins ci norme ci norme nationale bi mais depuis boobu ba léegi amuñu benn retour bi ci topp mooy ki nga xam ne si nii mooy job si subvention yi ñun club yi nekk ci ci ci département bi amul benn club bu jot subvention amul benn club bu jot subvention donc li tax ñu taxawal collectif bi mooy xeex lépp li nga xam ne si nii mooy intérêt Tivaouane jéem nañoo jokkook équipe municipale bu Tivaouane ngir ñu àddu ci bile mbir waaye mujjul antu wax ci match amical pré-saison Marseille doon dajeek Maniang Gignac FC ñeenti bal ci benn waa Marseille ñoo gañe boobule match ki nga xam ne nag mooy doomu Sénégal bi di Bamba Dieng dugal na ñetti bit benn bit ba nag ab penalty la ma ngi ko dugal ci soixante-dix-neuvième minute ba ba tey ci wàllum football la ak transfert Raheem Sterling signé na juróomi at fële ca Chelsea kopparu transfert boobu nag toll na ci juróom fukk ak juróom benn million doon joué ca Manchester City jamono ji dem na ca Chelsea kàddu yu njëkk ya mu yëkkati nag nee na fi nga xam ne ne mooy Londres mooy këram ndax daanaka lépp foofu la dooree jeexale xibaaru tàggat yaram yeeg ñaar fukk ak juróomeelu édition CAN handball Sénégal démb la doon joué match de poule bu mujj mu mujj cee am ndam jamono ji nag équipe bi focalisé wu ci coupe président confédération africaine de handball bu ca noppee dina xayma li nga xam ne ne mooy participation fi lañ ci xibaaru tàggat yaram bi jërë ngeen jëf. Amadou Sabax Ba ràññeeku woon loolu ci lancer poids ci Tivaouane ñu koy jaajëfal ci sport gi ànd ak Anna Rocha ci chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokkee yi. musique euh, dem daje tey jii ak benn ndaw sénégalais Lil salaam rappeur la génnee na ay single yu bëri li ëpp ci ay euh, wojam nag dafay def ab plaidoyer ngir euh, ndaw yi rawatina ndaw Sénégal yi mu leen di ñaax itam ñuy moytu bépp fitna. Oumou Kalsoum Ly Mille Salam di turu artiste ñu gën ko xamee ci Pape alsan salaam mu doore carrière bi ci atum 2012 ndaw artiste bi nag ngiy wax ni moom dafa engagé wu ci xeex li nga xamante ni moo di ñàkkum xëy ndaw ñi ak agression yi mu jàppee ni musique nag mooy yoon wi nga xamante ni ci lay jaare ngir gën leen a mën a ñaax. banlieue dëkk gis naa samay xarit samay samay morom yoo xamante ni ni tey dañuy dañuy dugg ci loo xamante ni. amaan na mënoon nañu bañ a jaar yoon boobu mais juste situation familiale moo leen di jàpp ñuy agressé wala di def waree ba donc loolu tamit gën a tax ma ma ni man pourquoi pas li may li ma yor sama xel man yàlla may na ma dugguma ci affaire de pour pourquoi pas ma dem def ay son conscientiser nit ñi parce que mënoo di wax mënoo ñëw ci nit ki. tête à wax ak moom peut-être mën na la déglu sax mais du ko jëfandikoo mais tey boo demee studio def benn son wax ci wax ci ne lii baaxul lii baaxul nga def ko clip montrer les images peut-être ñoom dinañ mën a xam ne yow lii lii nii mooy li mooy li war ci ñoom quoi. ndaw rappeur bi dafa bëgg ci xolam lii di musique ak culture Lil Salam na ngi wax ni pare na ngir amal ay featuring ak yeneen i artistes mu nekk façon boo xamante ni ci lay gën a mën a yaatalee lii di am bii. donc man du ma ne damay tënk sama bopp parce que tey musique musique la rek. mais terewul nag artiste bu nekk am nga cible lan ngay def hip hop wala afrobeat yaa xam lu ngay def mais tey terewul tey sa yeneen facette mën nga toog en moment donné nga gis benn artiste tey benn mbalaxmaan ñëw ne di def ak yow featuring pourquoi pas nga def moom featuring mën na la may ouverture tamit ci côté public am moom donc man du ma tënk sama bopp ci côté boobu franchement. mu jot a def lu toll ci fukk ak juróomi single artiste bi di Lil Salam bëgg na amal ab solo am Lil Salam nag mu ngay wax ni artistes yi dañoo war a gëm seen bopp bu ñu bëggee nekk royukaay yi. ñeenteeli édition Jalawali festival bu Dagana jàpp nañ ko juróomi fan jàpp euh, juróom-ñaari fan ci weeru août gi ñu dëgmal artistes yi di Woskali ak les frères Guissé ñoom ñooy doon parrain édition bile euh, Jalawali festival mi nga xam ne woykat bi di Moustapha Nam moo ko taxawal xew-xew la boo xam ne day am chaque année loolee ngir a boole aada ak euh, cosaanu euh, waalo ca place bu ndeer foofe ca Dagana mbokk yi fii la yem ci seen chronique euh, culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. seen parfum yu neex yi di Saphir gamme Clarissime Home Choice Sénégal ak mark bi di Total Tools ak déodorant Malaysia Yumo ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Ami Dia si ñu jàppoon bërki démb yóbbu woon ko ca yoon doon xool ana lan moo ko boole ak force spéciale yi ñuy wax l'observateur mi ngi ñuy wax li mu wax enquêteurs yi sûreté urbaine yi démb ba ñu koy auditionné ubbil kay bi Assane Dramé ak Mor Gueye bokk ci force spéciale yi ñoo waxoon ne xaalis bi ñu doon waajale seen bopp doon ci defar ay cocktail molotov ak yeneen jumtuwaay yuy mën a tax ñuy jàmmaarloog takk der yi xaalis boobee moo leen ko doon wéef ku koo xam ci Akhenaton nekk ci Europe moo ko ne woon ja démb bi ñu koy enquête ci kanamu ñetti awokaam nangu na ne mu yónnee gaañi xaalis bi waaye ba mu koy def xamul woon pour lan la source waa xëy gàddu coow li di ñu développé développement yu mujj yi am ci kaa Amidia nee nañu déglu nañu ko démb ci sûreté urbaine midi ba 15 heures ca la ñu prolongé ab garde à vue moom coordinatrice adjoint bu Pastef ci Géejawaay tuumay turbale ordre public bi ak salfaaña dëkk bi loolee la ñu koy toppee moom ndaw si di Amidia am na jëkkër waaye amul doom fukki élément ak benn yu force spéciale ñu téye kenn ca ñoom moo ko taqal ci coow li coow leneen mu di lu Pape mi ñu keroog ca pavillon spécial direct news nee nañu ay mbokkam di famim nee nañu leneen lu ñu déggaatoon ci ay mbiram it du leen bett nee nañu it li ñu koy toppee ne moo ko def mënut a nekk baayam dolli ci ne doomam ji di Pape Mamadou Seck du nuti fitna ginaar sax mënu koo rey bañ na ko ba fu tabaski masaana jotee am xaram man mii maa ko koy reyal mu ne xamatuñu ci moom dara li ñu bëgg nag moo di bu dee dafa dee nañu ma indil ab néew ma suul ko enfin campagne électorale bi saf campagne Vox Populi nañu Ousmane Sonko njiital parti Pastef tête de bu coalition Yewwi Askan Wi wàll seen ci géew bi bay xamle ne élection yi waruñu ko perte dañu ko war a gagné te dañu koy gagné inchallah mu ne it Macky bu forcé mandat du gouverner Sénégal ak ku ko ci mën di jàppale nag journal L'Info nañu kii di Thierno Alassane Sall ma nga woon ci diwaanu Tambacounda waaye jaaba jonge na fa Macky Sall ba doyal Thierno naanuf ci foofe fa la ñu jëm ak Macky Sall maire ci ngoon jote ngir feete sama victoire ci ndakaaru ci la Sénégal mi ba ñu fa doon liggéey mu di lool journal las ne nañu jëm ci alxames ji ñu fa doon liggéey dana fa tegit xeer wu njëkk wi jëm ci hôpital bi ñu war a tabax foofee ca diwaanu Saint-Louis journal Le Quotidien mi jàpp na bind ko ci xët mu njëkk mi ngi ñuy xamalit ne lu jëm yi état bi di séddale borom kër yi seen loxo jotul seen ginnaaw 2 milliards 515 millions yi ci région bu Saint-Louis ci la jëm lu jëm ci ay mbiram ba tey moo Macky Sall journal Le Témoin mi ngi ñuy xamal ñaari milliards yu mu nar a génne ngir defar ab image benn cabinet bu nekk ci Amérique moo gagné marché bi ngir gunge Macky Sall diggante 2022 ba 2024 objectif bi mooy fexe ba askanu Sénégal safoo ko moom Macky Sall quartier daaru salaam ga ca kees libération mi ngi ñuy nettali lu garaw te ñaaw lu fa am benn femme bu ñu naan em ñas am fanweeri at moo fa wasin xoj doom ji ba mu sedd ci ay loxom mu dugal ko ci mbuus dem sànni ji ko ci benn tabax bu yeggul bi coow la jolle yëf yi siiw ñu dem jàppi ko li mu wax moo di sa moo tax mu am doom ba noppi rey ko dem sànni ji ko ndax faru xaritam bu mu doon génnal ci suuf moo ko ëmbal seen parfum yu neex yi di Safir gamme Clarissime Home Choice Sénégal ak marque bii di Total Tools ak déodorant Malaysia Yumo ñoo leen doon may ci yéenekaay yi ñu doon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM tey la examen baccalauréat ci Sénégal di tàmbali baccalauréat général euh, la ñuy njëkkee mooy philosophie gi ñoom gune yi du ñàkk sax ci suba ak 8 ak léegi ña nga ca téeméer ak juróom fukki junniy candidat ci la ñu toll ci mbooleem centre yu euh, Sénégal ci diwaanu Fatick euh, kilif kilifa bu njàng mi foofu di inspecteur d'académie la mu bëgg ngir kon candidat ya mooy ñu wàccoo ak lépp luy tere ñeel lii di toogin wi ci biir centre examen yi rawatina yorinu téléphone portable muy conseil boo xamante ni seeni naataango rangoo yëpp ci diwaan yeneen mar nañ ci gën a baxeel maanaam lépp lu ñuy tere nga bakko lépp lu lay gàllankoor di la yàqal examen ginnaaw atum njàng mu métti lool Euh, inauguration aéroport international am Ndar tey jii lay doon ci njiital président de la république Macky Sall jumtukaay la am solo lool ñaar fukk ak ñeenti dem ca dina yokk koom gi rawatina wàllu tourisme euh, waaj rawatina it waajal gi ñeel pétrole ak gaz foofe ca gox bi di Saint-Louis wàllu xibaar bokk na ci it rëccug Pape Mamadou Seck du ñàkk kilifteefal kaso bi indi ci leeral tey jile ñoom dinañu daal di janoog taskatu xibaar yi ci kanam tuuti bu 11h campagne bi ak li nga xamante ni mooy carte yeeg euh, la ca bari juugu ca commission ba di préfecture bu diwaanu Louga ñaari junniy carte yoo xamante ni gisagunu seen borom moo waral président commission bay sàkku ci aji politique yi ñu gën a ñaax seen i ñooñ ci jëlim kart moomee nga xamante ni moom la ñu mën a wotee bu créogee euh, bisab wot ga euh, du jumtukaayu beneen di leen fàttali ci wàllu wér-gu-yaram coronavirus gi ngeen gën a baxel lim baa ngi yokk juróom fukk ak ñett démb ñu dellu ci li nga xamante ni mooy euh, digle yi masque yeeg raxasu geek bañ a nuyoo geeg yeneen am na solo lool <laughs> donte corona gi moom xam naa ne ñu ci waxatul ba fii rek nit ñi seen wàllu bopp grippe yi ñu fiy dégg yëpp loolu du leneen ñëpp a tëdd fi mu ne naan damaa grippe ak soj meeg tisooli yi <laughs> yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm ñu yendu ak jàmm. Vous êtes électricien, électronicien ou électrotechnicien, vous êtes menuisier bois,